Bienvenue sur Salam Vision. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez les programmes de Salam Vision. Voici une synthèse de l'actualité à la présentation signée les Chakou euh, C'est maintenant officiel, les musulmans du Sénégal ont démarré le mois de Ramadan à partir de ce mercredi sur, l'ensemble du territoire national. Auparavant, euh, avant d'autres musulmans ont également commencé le mois de Ramadan. Le Fonds de résistance euh, a tenu, tient actuellement une conférence pour se prononcer sur le report des élections locales euh, qui est prévu en janvier 2020, en, en janvier 2022. Euh, D'autres sujets sont également évoqués au cours de cette conférence de presse. Massalikul Jinan, la grande mosquée située au cœur de Korban, lance l'appel à tous les musulmans, des étudiants, les femmes, les jeunes, de venir s'associer auprès de cette grande mosquée pour, euh, nous disons, euh, faire ensemble le jeune, a déclaré le coordinateur euh, de cette grande mosquée. Nous allons nous rendre à l'étranger, c'est finalement officiel. Le président Patrick Talon a été réélu dès le premier tour à la tête du Bénin avec 86,37% des voix et devant ses deux adversaires de Enfin, le patron de Razawa au Mali a été euh, criblé de balles devant son domicile, a été tué par ses assaillants. mbokk yi asalaamaaleykum ñu tënk ko ko ci Barma euh, tàmbale nañu koor tey kii diwaanu Sénégal yëpp barki dem nag am ñoo xam ni euh, tàmbale nañu koor boobu di woo jullit yëpp ñu ànd ak dal ñaan yàlla ñu fekke ko ay at yu bare bare Massalikul Jinaan mooy grande mosquée nekk ci Kolda ñu woo jullit yëpp képp koo xam ni Euh, même bu ñu mën ngay jullit nga ñëw ñu ngi passé loxo euh, dog ko ko weeru koy foofu ca euh, Massalikul Jinaan ki bi mooy coordonnateur bi yore mbirum jumaa jooju Front national de résistance jëm aussi kujje politique opposition bi ñoom ñi ngi ñaaw élection locale yi nga xam ne dañu ko dàq jamono jamono yi nag ñu doon jàkkaarloo taskatu xibaar yi pour waajal siwal seen i programme Université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru li ñu naan euh, le syndicat donc des enseignements du supérieur ñoom nag ñu ngi daan xaw nguur gi ñu fonk seen i euh, am na ay débët yoo xam ne ba léegi saafara guñu euh, fële ci daara kaw yi. bitim réew ñuy doxantu fële ci beneen Patrick Talon moom nag moo jël ndam li si premier deuxième premier tour élection présidentielle fële ci beneen moom nag am na 86,37 pour cent moom nag moo raw ñaari opposants yi. Euh, tekki fële ca Mali euh, patron bu Azawa nga xam mooy euh, jiite waaye képp fële ca Mali dañ ko boom buntu këram dem fële ca Mali yeneen xibaar mbokk yi leen gërëm leen sant ñaan yàlla atum naataange si weeru koor mu nekk atum mu nekk weeru jàmm jàmm jàmm beneen yoon.